Rakam ji Idrissa Laye Thiaw ñëpp a ngi fii ambiance baa ngi nii deux jours li nga si appel bi ñëpp ñi ngi xaar li nga xamante ne monument bi ñi ngi xaar di xool lan moo ci nekk ci biir actuellement ambiance baa dox ñëpp a ngi appel papa bëgg nga jël ma ma jëlaale si karkat yi fi maam sunu xol lan nga def maam sunu xol lan nga def si yow du kaaw moomu kaayu kulaay voilà sant yàlla rek tey na ko rek di bëgg bu baax. waa li nga xamante ne deux jours moo des si appel bi. mooy woote signalement mooy dox rek. woote sanga ba. mooy dox di dox. njiit gën fuuf. billaay walaay taala kenn du sanga bi yaa ngi ci liggéey bi talatoo dara sonn nga. waaw c'est normal bàyyi laa ko jar. te ñun ñëpp a sonn dégg nga ko sunu baat yi. sant sant yàlla. yow monument bi kenn xamagul lu nekk ci biir te surprise la de. waaw waaw xanaa nag xalifu tëdd bi rek moo fi nekk nag. waaw kon nañ taaxirul tuuti ñu. xool léegi sëñ bi ngeen incha allah léegi ñu xam li nekk ci biir. jaajëf de léegi léegi sëñ bi. ni dama la recruter pour euh, social shopping. waaw waaw kontaan na trop. instant bi papa gis nga sama sama copain Ndiolaay mi nga xamante ne actuellement nii copain Asiam dama koy recruter social shopping Ndiol maa ngi lay waaw maa ngi lay fay sax. mais monument bi actuellement nii maa yaa xam te waaw waaw monument bi dans quelques instants dinañ ko ubbi léegi yàggatul. parce bi rafet na lool lool lool lool. waaye ñu ngi sant ñëpp rek ñëpp ñëpp ñu ñëw ñu ngi lay sant di sant sang yu tedd yi toog bu seen ak di sant ñëpp di jëlee sant bi nag Serigne Ablaye Thiaw ndax moo lépp moom la ko waa ba Ablaye waa nii nii noo leen taxawee nii que forte bi ma gis fii nii mbooloo bi jàmmoo bi am si ay jeunes ya nga xamante ne ñoom ñëpp lii rafet na daal waaw waaw rafetlu na ko bu ñu xam ne benn yéene la rek ñun ñëpp ñoo bokk yéene. waaw kon jooju yow nañ taaxiru tuuti ñu xool li nekk ci biir. waa ci kanam a ngi ni. siyaar naa la. waaw waaw gis nga ne gis nga ne. naka waaru yi. waay sant ci koom bu baax. yaa ci koom waaw waaw. waa actuellement nii xam na léegi ñu déglu tuuti après ñu xoolal moo nekk ci biir. waaw waaw waaw waaw. après après ma jëlaat la. waaw allah léegi léegi. sëy naa siyaar naa la. sama esaar nga. di góoro gaañi weddi maam li maamu lay lay la la lay lay la la waawaaw a loxo ca kaw ajana ngi xaar di sañse zakirina zakirati ñoo soxo baat bi wóor na lay la la ca kaw rawalaay ñëw na seede wu junjin ak dalay dem ñëwaat tas jëmam ja ngi dëggal maam li maama lay lay la la lay i dari sa sa baay mu naamu toog naamu su fanaan dem nga fanaan wala mu fanaan wala laay

Abdoulaye sant la Abdoulaye suñu cofeel nga wax bal gi fon fon gi lamb daj borom gàllu gi jam yi sa fon gi balu gi sàmmaan mu rëy mi du ko wax ñam bi laay bëgg way man yayaa ngum ci Ibou kontaan may mun a jaw Idrissa mu ndaw sa maam ñaaya zaman mu ti fi biladina Sénégal Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye raye ni joytul rawul xutbi fil umame suñu jofee loxo ci kaw ñu màggal borom bari Temmal moo feeñ fii ci yéen imaam Seydina Baye Abdoulahi yaa dunni cër bi ni man nga yaa di nana na ko ñëpp wax yaa dunni cër bi ni man nga Abdoulahi naan yaa benn jëlee doomi maam nga yaa di ñaanal. Abdoulaye Habib Alahi. Seydou seen baay. Abdoulaye ya doon lu gaay laay. loxo ya doon lu gaay. loxo ca kaw ya doon lu gaay laay. yaa doon lu seydee. আমরা মমিন আমরা চাকাউয়ে দল্ল মাইরা ইয়া দল্ল বেইনে চর বিরাইলা মমিন আমরা ইয়া দিবানা ইলা বাখবা মমিন আমরা ইবু সাবাই দওল সাই রহতা কাউ দওল সাই தொப்பனை மதம் தாய் di rafetlu itam jataayam ndax fii nu toll ku xam dara xam ne amul jot ndax li kay xaar ak ñi kay xaar li kay xaar ak ñi kay xaar ñaari wax yu bokkul la li kay li kay xaar paparaan mooy gan yi nga xamante ni bëgg na suñu ñëwee ci xew mi ku ñibbi lu waay ñaan ci Serigne Ablaye te muy dëgg ci binaay dinga xaw ma nag waaye li wóor barke alquranul karim lu waay ñaan ci moom Seydi bu dee dëgg billahi di nga am yéen nag da ngeen dugg da ngeen dugg bu ngeen sàgganee Idrissa am kër ca almadi wax leen ami xaj bi garde déglu leen ma bu baax xaj bi di nelaw mu sàggan ba sàcc ba dugg fa xar ma matta sàcc ba kon waratu leen juum kon li may njëkk a wax kenn waratul saaga fii ndax li ne fii kenn waratul xuloo ci ëtt bi ndax ki fii kenn waratul dawal vélo ci mbedd mii di réewal ndalu ndax ki fii kenn waratu fi dawal vélo am de kenn waratu fi saaga ñi xuloo woon sax na nu juboo ndax kii ku fi tuurati mbalit de nga dee fii jarul toj eh li may wax ni du lépp de kii xam na kii sërif bi sëriñ Ablaye li ba sant kat ku ko bëgg rek texe ko waaye nii leen ma dëgg la ولا تولي الخلو في ولا تولي دوال فيلو في خم جين ما يبغ تريل دي في ولا دي فيام إلا وقت نك وقت كن يعك نك وقت ما مسير نيو نوي دي في ماجته كوفي نك دي مخ دي ترف ترف في سيد كبيزة من يوم قتلا nga bokk ci kër Seydina Limaamu ñu la nga génn àddina ñu dem balay rab gasal la kan dëpp sa bopp Issa Niang ñu dëpp fa sa bopp yi fii génn gàcce la fii ci koñ bi du tudd tur am na ko fi mos daal avant ñu koy rob ñun ñoo fa ne jël bopp bi juutal ko ci biir pax mi cigarette si génn nekk lu marron di fuur am odeur bu bon bàyyi laay nee na kenn rek ma jaaxal nee na kii tux te Seydina Mandione samaam neewoon na póotum yàlla ponkal mu tey yàlla su jëlee paanam bëgg fete nee na yàlla ku mu fete nga xotteeku Ido wax na ko xool leen ñi ngeen di àndal ñan la xool leen ki ngeen di xaritool kan la li ma koy tëjee bàyyi leen complexe ku ngeen gis ci parcelle ànd ak moom bàyyi leen complexe gan gu leen di seet yóbbu leen ki seen kër bu leen ko yóbbu kër jàmbur toog leen seen kër nga am gan complexe tax nga dem tànt si géej gi yooyu ay caaxaan la bàyyi leen complexe kon li ne fii ak ki ne fii ak ki muy xool tamu ne fii yàlla sunu muur ide jërëjëf yow tamit yow li fi man moo ne fi yow am déet li fi man moo ne fi yow olof nee na waxkat bu taaloo muuma yaakaaram tas na am déggoo Seydi waaw du ngeen def ne ci nga nu nun nga jàkkaar ñun ñooy sa tante tegalu nga alxuraan Idrissa la منا زتايت تنغنو منا الغراب دندت يو جنغنو دندت يور ننا زتايت تنغنو منا الغراب دندت يو جنغنو وين فلني لال منا زتايت تنغنو منا الغراب دندت يو جنغنو دندت يور ننا jagal tette nga nu min nga alquran teri nu rabbi bin kawar min ngay sa tay tette nga nu min nga ina jërëjëf ina wax leen ko jërëjëf yéen tamit mi ci biir moom it jërëjëf yàllaa ko bind mu mel ni mu mel rek waaye li ñu xam la xam kon ñoom ñu koy ñaanal bu baax idée yooyu di la ñaanal appel bi li nga ci soxla yëpp yàlla na yàlla ah fii de ñi fi taxaw ñépp baax nañ idée wax na ci biir wax bàyyi njar ko nduur doy na sëkk borom bunda kay laay kooku dafa am dafa am nu mu meloon ak nu mu meloon ak Serigne Ablaye mag bàyyi njarke rek muy julli ak muy julli ajjuma rek ba jaar fii ba sol mbaxane moom ak daraam yooyu Ida wax na dëgg mag ñi nekk fii noonu la ñu meloon bàyyi Alsaan Sarr noonu bàyyi libaas mbeng moo génn àddina maam Seydi ñëw yeeka ni nga libaas ngan balaa moo neex nga fekk fa borom libaas mbeng jógal pour que lay Mamadou Makhtar fii ku fi foo yaa fawal sa bopp kon ñu ngi arrêté faw suñu wax di am mbégte leen Idrissa wax doy na sëgg man dey maa ngi ñaan ci sërif bi ndakete yoo ñiy bëgg sëriñ Ablaye ku leen gën a dof laa dajeel kooku dafa dof lay laa ilaa laa bi lay laa ilaa laa laa baay bi lay lekk lay laa ilaa laa laa baay Abdoulaye amoo laay baay sa baay baay la kooku gën a dof ñëpp wax na dëgg ma wax ko limaa na sama yoon ñëw ci limaa man baax laa jàll kon kooku la ñuy teral maa ngi ñaan na ñëpp ni tek idée yow laay ñaan nga dem dimbali dimbali ba rek waaw bisimilah na ñëpp toog Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, initiative ñu jël initiative bu baax la uh-huh. ndax euh, Cambérène dëkk Seydina Issa Rouhou Lahi la uh-huh. te dëkk bi yàlla da ko digoon Seydina Issa Rouhou Lahi fii terre promise la ba tax na tey lii bu amee dañ ciy gën a kontaan gën cee sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax ëtt bii tamit dafa nekk ëtt boo xam ni Euh, war naa am lu ëpp lii mhm. ndax euh, ëttu maam Yoro Ndeela la ëttu maam Ibou Mbeng la te ñooñu ay saaba baay laay lan waxoon lan lan doon kaamil kaamil kaamil waaw franchement lii moom kontaan nan bu baax a baax di ñaan dëkk bépp am nga waaw di ñaan nan yàlla dëkk bépp am nga ndax Cambérène euh, de mambay nee na Cambérène mooy dëkkuwaay bi yàlla tànnal roowalaay loolu dëgg la yàlla moo ko tànnaloon Seydina Issa roowalaay jox ko ko kon nag buñ fi defee lii nii dañuy gën a kontaan message bi sang yi joxe nag muy Chérif Ibou Séni ak Seydina Idrissa message bu am solo la lool lool message. waa papa yaakaar naa ni tey suñu teewaay tey fii lii moo ko waral kii mooy sunu weex weexu bët kii mooy sunu point faible kii moo tax lépp leer papa loo ci gis. balaa may tëj waaw d'abord dañuy sant di gërëm ci liggéey bu rafet bi. Uh-huh. ñun amuñu lu dul sëñ Ablaye. Uh-huh. kontaan nañu aussi bi ñu defee jëmm ju tedd ji di làmbee ngi di ko ñaanal. Uh-huh. yàlla bu ko cat jiitu. ñu ngi kontaan seen liggéey. <laughs> lii rek lañ am. social shopping. social shopping. <laughs> social shopping ca kanam. <laughs> lii rek lañ am Serigne Ablaye Serigne Ablaye Serigne Ablaye jërë ngeen jëf di gërëm xale yi di gërëm xale yi koñ bi. saareen ëtt yëpp dañ leen boole ñu doon benn seen doole la. jërë ngeen jëf jërëjëf papa yaakaar naa ne lii lañ leen indiloon tey jii ñun ak yéen ba appel bi di ñëwaat ba beneen yoon ah.